moom mën nañoo wax ne na record bi région Kaffrine laay wax ndax li ñu sasoon nañ ko fuuf boo seetee ci région dem na euh, le département de Kaffrine de Koungheul et de Birkelane ñoom wax dëgg ñu leen sasoon weesu nañ lu sore sore sore sore opération parrainage yi nga xam ne ña ko def ci région Kaffrine euh, bu réussir lii euh, loxo délégué régional Abdoulaye Seydou Sow génnu ci di wax rek ne parrainage bii région de Kaffrine def bu soobee yàlla danañu ci taxaw saytu ko topp pare pare